waaw li ma metti mooy li nga xam ne ni gars yi dañ ko def lu ta te lu tey muy duré ay at muy diggante Kayar ak waa parce que waa Kayar xëy na xale loon duñu xaleel ndax am na suñu ay mag yu fi nekk ak suñu ay papa ak suñu ay nijaay mais lii état la lu tax état la mooy que 84 am na 86 am na ba 88 te ñu demoon ñu dugal leen si biir frigo ba la laa bokk xeexi woon na xale la waaye xam naa li may wax ñii doon wax maa leen wax ni leen lii kenn du si neexal état état da ngay wax moom dëgg menacé ko parce que ñun Sénégal ñëpp ko moom. Kayar lu mu xam si géej ñoom seen ay papa bay la ñu xam ak sàmm ñoo ngi dégg xam naa leen xam na bu baax ndax xam naa fa ay turandoo yu bare bare ay nit yoo xam da nga leen di raay da ngay xeex ak ñoom defante ñoom pour am li nga bëgg géej nag ñoom amul géej Kayar bu ñu waxee ñun dañu am géej Kayar géej Kayar littérature la am mais amul aspect man xam naa li may wax baax ndax jàng naa si ñaar ñëpp Kayar amul géej Kayar 50 mètres la am si géej kon Kayar bu géej la mën nappe Kayar bu nappee mi ngi dugg dakaar wala Kayar mi ngi dugg Mboro kon Kayar bu demee ba di menacer nit kon état moo seetaan loolu ñun nag fi mu toll li naan sës nanu mooy sës nanu état lu munu may ak lu munu mayul daana ko jëndal suñu bopp comme ñoom nee nañ danoo dóore ak di taal ñun essence fi ñu koy jënde benn la benn ménage am benn prix la xam nañu fi ñu koy jaayee xam nañu ni ñuy taale te bu dee ñoom ëpp nañu fit ñun ak ñoom benn différence la ñun bu ñu liggéeyee suñu waajur la ñu jox ñoo bu ñu liggéeyee seen poche la ñuy def ñun ak ñoom duñu mos a yam si àddina duñu mos a yem si àddina ndax loolu yàlla moo ko def deuxième parole mooy que état moo ànd si lii parce que diggante Mbour stade de Mbour ak Wakaam jàppoon nañu ay waa Wakaam tëj leen pourtant bi stade de Mbour dooree Wakaam état da si waroon wax dafa bàyyi ba ëmët am mu doog a jàpp ay waa Wakaam loolu moo jeex si Sénégal anarchie bi day jeex fii ñëpp ñooy yem ñu toog tous benn carte d'identité moo fi am sénégalais sénégalais looloo fi am Kayar nag woo na Kayar nag woo na naar ci guuxum soow ñoom dañu ñàkk jom Kayar amuñu jom parce que ñoom li leen gaal fele-fele yi leen di teral ñu ñuy bañ li leen gaal di defal ñoom mënuñu ko daaw jéeg seen benn gaal fii si Soumbédioune dunu beeka daal sama waa gaal ñoo leen jàpp yóbbu leen te seen mbokk yóbbu taxaw ni lii kenn mënu ko fay kon ñoom dañu ñàkk jom ñoom bu nu paanee si géej wala nu këpp si géej ñoom mënalul gaal fele-fele dara gaal fele-fele moo leen mënal dara lii nag du ke waa Kayar du ñoom de état la ak seen président de pes ak seen maire mais comme gendar la ñu amal problème ak Mora dinañu taal ay gaal ñëw tiim seen dëkk wala leen yéen dootuñu génn ñoom dootuñu génn lii dootu lu ñuy négocier xeex xeex la rey rey la taal taal la jeex na tàkk